wa amma man kaanat aadatuhu assalaamata maa idaamatihima fa taxallafat wa am naa fa qawlaani moo ci nekk istazhara allaxamiyu minhuma xadama luzoomil kafaarati wa man qaama ku taxaw ramadaan ramadaan imaanan ngir gëm waxti saaba am ju sàkku tuyaaba xufira kon jégaleef la ñeel ko maa la nga xam ne taqaddama jiitu na min zambihi ci bakkaaram ba nee na koo xam ne fexe nga ba weeru koor wi nga taxaw ci matal taxaw ci matal naafila yi ñu ci def ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba ci yàlla kon ñu baal la lépp li nga weesu ci bakkaar waaye xonte ndem taxaw nga it fii ci moom bi maa ca la nga xam ne tayassara moo jàppandi tayassara jàppandi na fa daalika loolee mar juwul luñ yaakaar la fadluhoo nga neelam wa takfiiru zunubi ak faralu bakkaar ya bii ci moom ba tey nee na bu fekkee sax jooxoo mboolem naafilay koor gi ca nañ ko rëddee nañ ko waxee waaye def nga ca kem sa kàttan la nga mën rek du tee ñu yaakaaral la ca nga ne lan yàlla ak it yàlla faral la ca say bakkaar wax yaa mu taxaw ga nag fii ci weeru koor fii masaajil jamaaxaati nekk na ci jàkkay mbooloo ya bi imaamin ànd ak ilimaan nee na nag naafila ñu def ci weeru koor dañ koy defee ci jàkk ya ilimaan jiite ñu def ko mbooloo waaye nag wa man shaa ku mu soobit xaamu mu taxaw fii bayti yi ci néegam waxu moom sax ahsanu moo gën rafet li ma ñeel koo xam ne xaw yet dëgër na ni yetuhoo yéeneem wax dafa moom rek ku mu soob daal naafile weeru koor yi nga defee ko ci sa kër te nee na sax bu fekkee ne boo ko defee ci sa kër du la teye sawar kon nga defee ko sa kër sax moo gën def ko ci mbooloo mi bu fekkee bu dee yow dong nga taayal nag kon say boo ñëw ci mbooloo mi lu may nag luy kilifa goo xam ne bu demee mbooloo mi dem bu demut mbooloo mi duñ dem kooku moom kon na dem ci jàkka ja ndax jàkka ja bañ a weet waaye bu dee mel yow dong nitu kese daal moom te nga xam ne boo beroo naafila ci sa kër naafila ko weeru koor wi du tax nga taayal tuddee sawar kon nga def ko yow dong ci sa kër moo gën dem ca mbooloo ma wakkaana nekkoon na asalafu dawal ba asaalihu bay aji yiw yàqoowoon di taxaw fii ci ramadan ci masaajid ci jàkk ya bi ashri na ci ñaar fukk rakxatan ci ay rakka ci jamonoy Umar lu Xattaab mi nga xam ne moo njëkk a dekkal noonu naafile weeru koor gaa yu baax ya bi masaajid yi naafile weeru koor ñu ko daan def ñaar fukki rakka su ma yoo turoon topp danañu wettare bi talaasin ci ñett dañuy julli ñaar fukki rakka teg ca safa ñaar ak wetar benn kon mu daa doon ñaar fukki ñett ci ay rakka lañu daan def booba wa yaf si loon te ñu tàqale bay na sof yi diggante safa wala witri ak wetar bi salaamin ci ëpp sëlmal safa basal bi ñu ko mosaa def dañu julli safa ñaar taayu sëlmal toocaat ak wetar nag benn rakka su ma sallaw topp julli nañu baax na daalika ci gannaaw loolee si tan juróom benn wa talaasi naag fanweer rakk xatan ci rakka nga xëy na sof yi bokkut ak safa wala witri ak wetar bañ tollee ci jamono yi ku baax a baax ku ràññiku ci mbaax ñu koy wax Omar ibn Abdul Aziz bi masaaj naafila ci weeru koor daana yàgg ndax du daa mat ci ay rakk fanweer ak juróom benn te safa wetar ñëwagut kon boo ci boole safa wetar kon mu daal nekk ñeent fukki manqué benn jamono Omar ibn Abdul Aziz moom noonu la daan doon wa kulli taalika mboolem loolu rek waa si aji dagan la nee na loolu lépp rek lu ñu def rek baax na wa yu solli mu dana sëlmal min kulli rakk xatay ci bépp ñaari rakk li ñu koy defee rek mooy ñaar rakk yu am rek sëlmal tegaat ñaar tegaat ñaar rek ba bu muy noppi ba wetar mujj ci wa qaalat wax na xaaishatu soxna si xaaisha radiya yàlla na doole gërëm allahu yàlla xam xaa walis ko ne maa saada mësta dolli rasulullahi yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fii ramadaana ci weeru koor wala fii xëyrihi du jaagew ci ludul moom xalas na tey xasrata ci fukk ñaar rakkatan ci rakka bax daa yu nekk na seen gannaaw aliyatru wetar soxna xaaisha neen yonante bi daal moom muy ci ramadaan muy ci yenn weer a ci yem daaw ci yeesu fukki rakk ak ñaar ak wetar mu daal xëy na rakk yaay yàgg nag ci taxawaaye ba mu ci ay tànkam nee woon sax noonu koy jànge ci ay tànkam nee woon waaye daw wees moom ci ak lim moom fukki rakk ak ñaar ak wetar loolu nag moom la waa réew mi doxal fii ku amee wér bu sën bi itam noonu rek ndigal loolu rek lañ la ci jox baabu li ab buntu la fil i'tikaaf yi ci li i'tikaaf li i'tikaaf mooy sax ca jàkka ja boole ci di wóor bëccëg bi ak a taqoo jaamu yàlla moom nag lu ñu sopp la lool ndax day defar nit ba mu baax a baax wal ihtikaaf li ihtikaaf min nawaafil xayri mi bokk ci naafila yu yeneen li ihtikaaf yi bokk ci naafila yi nga xam ne des koy def rek ci bëgg lu baax waaye nekkul lu war wal xukkoofu baatu xukkoofu al mulaasamatu mooy ak taqoo day wane ne cosaanu baat bi ak maanaam ñu ko jox ci yoon niroo nañu ndax baatu xukkoofu xam ci la ihtikaaf bàyyi ko xukkoofu mooy cosaan ak taqoo ak sax lay firi te xam nga li ihtikaaf da ngay saxoo jàkk ja boole woor ak ak jaamu yàlla kon moo tax baat bi la mu daan tekki naka jekk njëkk ñu koy jox moom maanaa it ak maanaa ñu ko jox ci sharia ba tey sorewuñu wala ixtikaafa dén li ixtikaaf illaa bi siyaamin dara mu ànd ak koor moom nag nee na faaw dañ cee boole woor waaye sax ci jàkk ja kese di jaamu yàlla te boole boo ci woor bëccëg bi du ma tax a doon li ixtikaaf wala yokkoonte du nekk illaa mu tataabix dara di aji toftaloo te it fan ngeen koy def day tegaloo maanaam bu fekkee dangaa yéene woon tegale tegale ko dong ngay sañ bu fekkee yéene woon dara it bu fekkee yéene woon dara it ñu sant la tegale te doo ko sañ a bañ mu des nag boo ko yéenee ci teqale boo ne man daal yéene na maa si kaaf juróomi fan waaye damay def mën si kaafee benn kat li mën a sër mooy moo defee benn noppalu benn ba bàyyi matal loolu kon moom loolu ngay def kon kon sañ ngaa def loola boo defee benn noppalu benn defaa benn ba kemi mat wala yokkoon tey du nekk illaa fi masaajid yi dara ci jàkka ya kama xaal ni ko waxe allahu yàlla subhanahu solal naa ko lépp léelu ci moom te wa antum te yéen te mbir moom yéen xaaki fi woon waaye sax ngeen fi masaajid ci jàkka ya itikaaf kat nee na ci jàkka lañ koy defee kenn du ko defee ci am sa néeg rek wala sa boutique rek wala yu demee noonu dinaa war a nekk jàkk yoo xam ne doon jàkk yi waaxu sàkk xam ne ku sañu doon jàkk joo ber ca sa roq rek nga xam ne yow dong yaa koy dem te nekk jàkk joo xam ne ñeneen keneen mën naa ñëw jaamu ci yàlla fayin kaana dem am na baladun ab dëkk fii ba mu nekk na ci aljumuhatu julli juma falaa yokkoon comme du nekk illaa fi jaami dara ci jumaa ja illaa an yan diran dara bu dafa nisar ay yaaman ay fan yoo xam ne laata axusuhu du ko jot fiihaa ci ñoom aljumuhatu julli jumaa ga fan ya ngay lixtikaaf bu fekkee ajjuma bokk na ca te fekk jullik ajjuma war la kon na ngay dem ba ca jumaa ja ndax bu dul loolu tam bu ajjuma jotee faaw nga war a génn julli ji te booy génn rek la nga defoon yàqu boo ko defee jàkkee sa koñ bu ajjuma ñëwee faaw nga war a génn julli ji te booy génn la nga defoon daal yàqu bi ne la nga defoon yàqu nag mooy xëy na doo ñàkk tuyaa ba ji waaye fan ya nga defoon da nga koy defaataat kon nag bu fekkee ne fan ya nga ni sal lixtikaaf bisu ajjuma am na ca te ajjuma war la boole ci kon da ngay dem ba ci jumaa ja bu fekkee bis ya nga ni sar nag moom ajjuma amu ca mbaa ajuma warul nag kon mën nga koo defee ci jàkk ji bokk tu juma wa aqallu ma gën jaa néew la nga xam ne xoo moom ahabu moo gën a sopp ili naa jëm ci noonu dina istikaaf ci istikaaf xasharatu ayaamin mooy fukki fan lu ci gën a néew nag mooy benn bis dong loolu moom mooy moo ci gën a néew waaye nag lu ci gën ci mat ko moom mooy lu néew néew mat fukki fan soo ko mën di fukki fan yi mujj ci weeru koor itam moo ci gën wa man nasara ku nisar istikaaf yawmin istikaaf benn bis waak sara topp lu ko lasi moxoom war ko nee na boo ni soree li itikaaf benn fan moo lay war boo ni soree ñaar moo lay war boo ni soree ñett moo lay war ni sor nag mooy nga warlu ko te fekk waru la woon waaye ni sor moom bi cëpp tàmmuñ ko ndax léeg-léeg nga dem ba ca biir doo ci amat doo ci amati cawarte danga koy defee ngeen ne mënutuma koo ñàkk a def waaye in nadara ndem ni sor na laylatul genn guddi lasi moxoo kon war ko yow mun bëccëg wala laylatul ak guddi soo ni soree li itikaaf genn guddi dañuy wax ne la bëccëg mënu caa ñàkk bokk ndax ndeg mënut a ñàkk woor te koor bëccëg lañ koy def kon boo ñu soree genn guddi dañuy wax ne kon doo genn guddi da nga ci boole bëccëg ba ca topp ko dem daal lay war guddi ak bëccëg waaye mënut a mënut a ñàkk boole bëccëg ndax saa mu ànd ak koor te koor bëccëg lañ koy def. ba man aftara ku dog fii ci moom moo tax am mi doon mbir muy aji tey fal yëpp tëddi indi sosaat ixtikaafa wala ixtikaafam ja bokk na ci sart lixtikaaf mu bañ a dog koor ga. te tey ko bu daggee koor ga ci lekk mbaa naan te tey ko rek lixtikaaf ba yàqu na day tàmbaliwaat fan yam doon def xëy na nag du yàq moom tuyaaba ja bu fekkoon ne nag tuyut dog ga kon moom lixtikaaf ba baax na day jàll rek àggale baka saalika naka noonu man jaamaxa ku booloo fii ci moom lay leen ci guddi aw naxaran wala ci bëccëg naasiyam bi muy aji fàtte aw mu taxaw mi den wala muy aji tey ñoo ci yemoo moom daa xaw a wutanteeg kooru kese am kooru kese bu jant bi xasee so dañu sañ a lekk ka naan ak jotee ka muy seen te du wàññi dara waaye booy listikaaf moom doo sañ jotee ka ngay seen dara dara dara du ci guddi du ci bëccëg boo ko defee sax ngir fàtte mbaa ngir tey ñooy moo la nga defoon lépp yàqu nga war koo tàmbaliwaat nga seetlu ne itam du rekk jëmmi jotab kese ba moom dong moo koy yàq waaye kay laalante ci yaram sax wala fóon buñ ci jubloo bànneex sax mu daal di yàq liñ ci kaaf ba bu fekkee nag fóonub tàggoo la mbaa fóonub yërmande te bànneex amu ja nag kon moom du ko yàq waaye bu fóon amee rek wala laalante goo xam ne kooka bànneexoo taxal mu di ko def rek mu am bànneex ak mu bañ ko caa amayam listikaaf ba dal nay yàqu wa in marida ndem tawat na xaraja mu génn ila baytihi jëm ci néegam ba fa isa saxa ndem wér na banaa mu jóg xalaamaa ci la nga xam ne taqaddama jiitu woon na su ko tawat dalee ca biir listikaaf ji bu mënta woor kon day bàyyi rek ba wér bu wéree daal di àggale àggale gi mooy fan yam defan baax na da ciy fësale rek jàll bu dee tawat joo xam ne nag moom aayiwu ko sax ci jàkka ja bu ko neexee sax ci jàkka ja bu ko neexee dem këram bu dee tawat joo xam ne nag moom daa mënta ànd ak toog ci jàkka kon day génn rek moom dem këram ba tane door a del si àggale wa kazalika naka noonu in xaadat ndem bërëg na al mu'takifatu aji lixtikaaf ju jigéen jigéen buy lixtikaaf far gis deret faaw moom day génn ndax ku amee deret sañuta sax ci jàkka romb rek jàll sax dañu ko koy aaye kon faaw moom mu dem këram ba deret ji jeex mu sangu ñëw àggale moom it la mu def moom it la mu defan da cay sësal rek jàll waaye teewu koo baax wa xurmatul i'tikaafi ormay lihtikaaf ja nag xalayhima war na ci ñoom ñaar fil maradi ca tawat ja wa xalal xaaidi ak ci aji mbërëg ja fil xaydi ca mbërëg ma bi mu ne xalayhima rek yóbbaale woon na waxalal xaaidi ji mu wax daa wax ne nag ka tawat ñu wax ne ngànt la ak jigéen ja gis deret ñu wax ne ngànt la jamono yooyee mu nekk ci ngànt li ba bàyyi lixtikaaf ji na sàmm ormay lixtikaaf ji te loolu mooy bañ gaa woor rek lay sañ du tax nag mu sañ a joteeg ka muy sëyal ci sawukaay mbaa laalante ci yaram mbaa dara bañ ngaa woor rek lay sañ ba tawat ja jeex mu dellu si àggale wala bu dee jigéen ja ba deret ja jeex mu dellu si àggale fa ida taxurat ndeem laab na alxaaidu aji mbërëg ja aw afaaqa wala xiqi almaridu aji tawat ja fii laylin ci guddi aw nahaarin wala bëccëg rajaha kon ñu dellu ñoom ñaar saaxata izin ci wowali waxtu ilal masjid jëm ci jàkka ja ka ame woon deret nag saa yu deret ji jeexee na daal di gaaw delluwaat ca jàkka ja ka tawatoon ba tey saa yu tanee na daal di gaaw dellu ci jàkka ja moo xam guddi la moo xam bëccëg la nee nañu sax buñ yeexee dellu ga daal di war a tàmbaliwaat fan yañ defoon mel ni ku defutoon dara bu ñu delloo nag ci waxtu woo xam ne mëni su caa tàmbali woor ni ki gannaaw bu fajar fenkee la jëm ci bëccëg bi kon bis booba duñ ko wàññiwaale wala yaxruju du sañ a génn al mu'takifu aji lixtikaaf ja min mu'takafihi bàyyikoo ci lixtikaafu kaayam ba illa li xaajatil insaani ndare ngir aajoy doomi aadama maanaam nag xos bay lixtikaaf du sañ a génn fa muy lixtikaafe muy jàkka ja mbaa jumaa ja lu may aajo joo xam ne mënta ñàkk ci doomi aadama te loola mooy bëgg a génn dem ca wanawa saw mbaa xayta wala ajjuma mu bëgg a sangu ca ngaayal ajjuma mbaa bu dee bisub xiit mu bëgg a sangu ca ngaayal xiit mbaa mu génn bëgg a jàppi mbaa bëgg a sangu janaaba mbaa génn bëgg a lekk bëgg a naan yi dem noonu daal moom rek moo koy tax a sañ a génn ca fam doon lixtikaafe te it aajo ja muy bëgg a faj fa mu gën a jege rek te man faa fajoo du ko weesu bu amee fu mën a fajoo fu gën a jege mu weesu ko jàll rek la mu defoon daal di yàqu mu war koo tàmbaliwaat te it bu génnee du sañ a taxaw di waxtaan ak kenn bu génnee rek taxaw di waxtaan ak kenn ba tey liitikaafam yàqu mu war koo tàmbaliwaat wal yadxul na dugg moo takk fa wal liitikaafu kaayam ba qabla xuroo bi sam si njëkk sox jant ba min al laylat si guddi ga allati ga nga xam ne yuri dana namm ayatal yam sos fiyaa ci moom ihtikaafahu li ihtikaafam ja nee na bëgg nañ bu fekkee da ngaa bëgg a tàmbal ci guddi geenu jëm balaa jant yo so rek nga dem ci jàkk ja jant ba soyee la fa loolu lañ gën a taamu mën ngaa takk foofu rek ne bu fexee ba dugg ci jàkk ja balaa fajara fenk rek mu daldi baax ndax xam nga ne waxtu fenku fajar wa mooy tàmbalik yéeney koor ga wala yaxoodu du sañ a seeti mariran aji tawat ba tey bu xasee dugg ci itikaaf du sañ a génn rek ngir seeti ko tawat du génn ngir seeti ko tawat la mu defoon yàqu muy moo a tàmbali waat fan yam doon def lu ma waaye nag bu fekkee ne kenn ci ñaari waajuram wala ñoom ñaar ñëpp dañoo tawat faaw mu war a génn dem seeti leen ba tey bu kenn ka faatu woon te kenn ka moom des di dund it dana war a génn jaali ka nga xam ne mooy dund du mën a ñàkk lu mu ci mën doon nag bu génnee rek lam defoon moom yàqu bu ne lam defoon yàqu nag mooy faaw fan yam defoon da koy defaataat wala yu sol yi du jullee xalaa janaasatin ba tey dañ koy aaye bokk ci julleeg néew bu ñu andi woon néew ba sax ba mu jegee jàkka ja ak lu mu baax baax itam sib nañu rek mu ànd ci julleeg néew ga nga seetlu ne li mu wax mooy moom mi lii ci kaaf génnul jàkka ja teewul nag mu ànd ci julleeg néew ga waaye taxul mu génn jàkka ja boobu la yem ci sib waaye bu génnoon jàkka ja ngir ànd ci julleeg néew ga rek lii ci kaafam dal di yàqu te kat bu fekkoon ne génn ga daa war ci moom ndax moom rek moo war a taxawu néew boobee mënta ñàkk baa ñu war koo waajal moom néew ba te moom rek moom la war gis ñu keneen koo xam ne moo ko mën a def su boobaa faaw day bàyyi lii tikaaf ba génn jëm ci néew boobee bu dee jullee gaa bu dee waajal gaa te du tee rek moom lii tikaaf ba mu defoon yàqu maanaam moom day tàmbaliwaat bu ñu nee du seeti ku tawat ba tey fa mu nekk ci biir jàkka ja ku tawat ñëw fa mu dem ne ko ah mbaas yaa ngi tane waay daal koy seet ci biir jàkka ja moom ba tey loola sib rek lay doon waaye bu génnoon ne day seeti moom ku tawat ka kooka moom day daal yàqu liiti kaa moom daal yàqu wala yaxruju du sañ a génn li tijaaratin ngir yaxantu yaxantu mooy jaay ak jënd ngir am bénéfice loolu waxaale wuñ ko bu xasee dugg ci liitikaaf moom amul sañ-sañub génn di jaay mbaa muy jënd ngir bénéfice la mënta ñàkk kay ci lum lekk mbaa lum naan mbaa loo xam loru na ca te it yor na njëgg moom may nañ ko rek mu dem fu mu gën a jegee jënd ko fa ñëwaat loolu moom sañ na ko wala charta déetub sart nag fi i'tikaaf yi muy am ci li'tikaaf maanaam boo dee li'tikaaf boo ci bëggee dugalub sart ne bu nangamee mu bàyyi lixtikaaf ji itam du tax ñu faale sart booba nit ki mu ne man kat baykat laa dama dugg ci lixtikaaf waaye bu bët seetbee li may sart mooy damay daal di bàyyi lixtikaaf bi dem bay mbaa sama soxna kat daa tollu diggante li may sart mooy bu may lixtikaaf itam bu ma déggee ne am na gone daay génn wuti lu ma ko ngéntee sart yu mel noonu nga xam ne daa dàqoon teeg lixtikaaf du ci am benn njariñ bu xasee tàmbali rek moom bu génnee ngir dara ci yooyu rek lam defoon yàqu mu war a tàmbaliwaat defaat fan yooyee wala ba sa it añ yekkoona mu nekk imaamal masjid di ilimaani jàkk ja mën naa doon ilimaani jàkk ja nag daa mel ni sax sopp la war a doon ndax yonante bi bu ko mësaa def ca jàkk ja ci moo daan doon ilimaan ja wala wooy ñeel na ko añ yetta zawaja mu takk soxna aw yàqida wala muy fas ni kaa xëyri yi séyit kurul moom bu ko neexee nag mu mayee soxna bu ko neexee moom itam ñu may ko soxna dañu bañ nga defee laa yem ak armal aj mbaa xumra déedéet yemuñu moom mën naa maye soxna mayes na ko may soxna te du wàññi dara wala ma ni takk fa ku liitikaaf aw wala shahri ci njëlbéenu weer wa aw wasataxo wala ci diggam ba xaraja mu génn mi ne itikaaf yi bàyyi ko ci liitikaafam ja bax doo xuróo bi sams ci gannaaw soxu jant ba mit aaxir yi ca mu jëm ga dafa wax ne bu fekkee ne yow sa litikaaf da nga koo fas yéene jeexal ci bu weer yu jeexee rek da nga ko takk rek ci bu weer yu jeexee laay bàyyi moo xam ne nga tàmbalee ci bopp weeru moo xam ne nga tàmbalee ci digg weer waaye daal li nga wax moom mooy bu weer yu deexee laay bàyyi kon nee na ba la neexee bis ba ci mujj bi jant bi sooyee nga génn fa saasa bañ faa fanaanaat waaye li mu ci bëgg a teg nag moo tax mu wax la loolu xam nga da nga ne rek man bu weer yu jeexee laay jeexal saa litikaaf kon bi ñettee ji moo ci mujj jant bi sono rek bu la neexee daal génn fa saasa dem sa kër ndax jeexal nga waaye li mu ci bëgg a teg nag moo tax mu wax loolu wa in istakafa ndem istikaaf na bi maa ci la nga xam ne yépp tasis dana jokk fii ci moom istikaaf wala istikaafam ja bi yow mi fitri ci bisu korite fa léegi kon na fanaan laylatul fitri guddi korite ga fil masjid ci jàkka ja xataa yaxdu ba ba muy xëy min fu tukkee ci moom ilal musalla jëm ci jullikaay ba daa waxan léegi ne fan ya ngay istikaaf boo demee ca ba ci mujj ba jant ba so rek mën ngaa daal di génn ñibbi sa kër du jar ngay fanaan ca jàkka ja mu ne nag bu fekkee ne bis ba nga jeexalee daa tombe guddi googee nekk guddi xëyit maanaam ñu wax ne suba la korite ni ki nga doon def fan ya mujj ca weeru koor wa te sartan ne bu weer wi jeexee laay bàyyi kon bu jant ba sooyee duñ bëgg rek nga daal di ñibbi xaat ci sa kër dañoo bëgg nga fanaan ca jàkka ja boo xëyee na nga waaj dem ci fa ñu jullee julli korite ga boo jógee julli korite ga door a ñibbi sa kër nga xam ne kon sësale nga ak jaamu yàlla ci ak jaamu yàlla ñu bokk sësandoo ñoom ñaar mooy jaamu yàlla gi nga nekkoon muy lixtikaaf bi da nga cee sësale ak jaamu yàlla muy julli korite gi teew na bu la neexee moom it bu jant bi sooyee rek ñu ne weer yi feeñ na nga dem fanaan sa kër boo xëyee door a dem nag ci julli korite ga waaye daal li ñu wax léegi moo gën fanaan ci jàkka ja ba xëyee ci jàkka ja dem julli yi julli korite ga baabun di ab bunt la fii zakatin hayni ci azakay kee kee ci wala fu may wuru sa xaalis wal xarsi ak mbay wal maachiyet ak ndoxteef ñu koy wax ndoxteef waaye moo ak jur jurub kër moom nag boo ko waxee dana yóbbaale xar bëy nag gëleem wa maag la nga xam ne yax ruju dina génn nel maadin tukkee ci mbell mbel da cee jublu kan ma ñuy gasee wuru sa xaalis ak buñ ca génnee wuru sa xaalis nañ koy asakaale wa dikkali gis yéti ak tudd galak galak daa xaw a nuru lempo ñi nekk di dund ci biir jullit ñi te bokkuñ jullit ñi ñoom duñ jox asaka ñoom dañuy jox li ñuy wax galak ñooñu nag daañu wax ci galak boobu nu muy toll wa maag la nga xam ne yu xasu def na ko jàppe min tujjaari ahli zimmati ci way yaxantu yi ñuñ walëre wal xarbi yéen ak xare àll ya way yaxantu mooy way commerce ay commerçant daal maanaam man nga ne min tujjaari ahli zimmati ci commerçant yi ñooñu wala réewa wal xarbi yéen ak xare àll ya ahli zimma mooy ñi nga xam ne ay yéefar lañ waaye dana amante ñoom wala réewa xeex du am suñu diggante ndax wala réewa xarbi yéen xare àll yi mooy ñi nga xam ne xare moo dox suñu diggante amul wala ree ñooñu nag kenn ku ci nekk bu ñëwee bëgg a jaay ko jënd ci biir réewum jullit am na taxe lu mel ni ab duwaañ boo xam ne ñu koy jël ci moom dana wax nu muy toll wa zakatul xëy ni asakay kee wal xar si ak mbay wal maachie ci ak ndoxteef koy wax jurub kër faridatun farata la génne asaka ci wurus ak xaalis ak mbay ak jurub kër muy xar bay naggaleem loolu farata la te bokk na ci ponki lislaam yi fa amma zakatul xarsi ndaal asakay mbay fa yow ma xasaadihi nekk na ci bisub góobum ga maanaam da ko tudde bisub góob rek waaye daa bëgg a wax mbay moom bu ñoree xom rek la ca asaka war nga xam ne boo yéexee góob doon ci lekk mbaa nga ci doon jaay mbaa joxe addiya mbaa saraxe mbaa maye ak lu mën doon daal bis boo demee ba asakaal na nga tolloole la ci jot a génn mooy la nga jot a jëfandikoo nga seetlu war a tolloog asakaam nga génne ko waaw loolu faaw nga seetlu toll noona rawante ne bu dee ku yorug jur mu leen ci xaral ca pepp ma ñuy lekk yépp rek bu dee ba génne aska day seetlu war a tolloo loola war a toll loola mu génne ko wal xay ni kee nag moom wal wal maché ci akub jur fa fii kuli xawlin nekk na ci mépp at maratan wenn yoon maanaam bu dee wur sa xaalis ak jur moom dañ koy takk ci matuk at ma matuk at ma itam doo ko seet ci tamxarit ba at mi jeex da nga koy seet ci yow ci sa bopp rek yow di ko bëyee sa jur ba nga moom jur rek ngay seet waaw bu dee wut sa xaalis ba nga amee rek ngay seet waaye doo seet ne at maa nga tàmbalee ci weeru tamxarit ba at mi dee ci weeru tabaski déedéet kenn ku nekk sama at rek ngay seet su matee at nag moom te mat nisaab asaka war ca wala zakar di asaka min al xabbi ci pepp wa tamri ak tàndarma fi aqal la ci lu yées min xamsati aw saxin juróom wasq wa dalika loolee sittatu ak fisatin mooy juróom benn xafiis waru bu xafiisin ak kaaru xafiis dafa wax ne mbay moom bu fekkee matul nisaab asaka waru ca bu la neexee nag nga saraxe rek noonu ci sa coobare nisaab yi mbay nag moom da koo jàppee juróom benn xafiis ak kaaru xafiis ci ñu xam nattukaayu xafiis man na noo jàpp li ñu xam rek mooy ay bërigo nees na koo jàppee juróom benn bërigo ndax dafa wax juróom wasku te teg ci ne wal wasku benn wasku sittoona mooy juróom benn sittoona mooy juróom benn fukk saaxan ci ay saa bi saaxi nabi ci saax si yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba wute moom saa arbaxatu am daa din ñeenti mudd la bi mudd yi ci muddum yonante bi alayhi yàlla doolee nekk ci moom assalaatu dooli dalal wasalaam ak dooli woolu daa wax ne benn wasku moom juróom benn fukki saa la ci boo dee seet saaxu yonante bi te saaxu yonante bi ñeenti mudd la ci muddum yonante bi ci gàttal rek nee nañu saax mën nga koo tolloole ñaari kilo am ñu ko ëppale am ñu ko yéesale waaye ci digg bu daa mën ngaa jàppe benn saa bu dee ñaari kilo loolu nag boo ko defee juróom benn fukki yoon muy benn was ko nga def ko ba muy juróom yoon nag da lay jox juróom benn bërigo juróom benn bërigo daal moom digg doo mën ci nga jàpp ni mooy nisaa bi mbay moo xam pepp la moo xam meññet la ni ki tàndarma ji nga wax waxul nag lañ ciy génni waaye lañ ciy génni mooy bu fekkee ne asamaan si moo suuxat mbaa jax ji moo suuxat mbaa machine a suuxat te fayoo ca dara dara kon na ngay joxe fukkeel fukkeel mooy boo ko defee fukki xaaj génn benn ba asaka ni ki bu doon ton fukki barigo da ngay génne benn barigo muy asaka su fekkee nag yaa ko doon suuxat ci sa loxo wala dangaa fay machine ba mu suuxatal la moom da ngay joxe genn wàllu fukkeel ni ki ba ton bi moo waxoon léegi da ngay joxe genn wàllu barigo doo joxe barigo wayu jumaxu def na boole alxamxu bele wa shahiru ak loros wa sult ak sult fi zakaati ci asaka yetti xeeti pepp yi muy bele ak lors ak sultu moom daañu leen boole boole gi mooy boo amoon ñaari barigoy bele am ñaari barigoy lors am ñaari barigoy sultu da nga war a génne asaka wax dañu koy boole jàppee ko juróom-benn su fekkoon dañu ko boole dañu wax ne kon asaka waru la ndax ku nekk da nga jaam rek ñaari barigo waaye dañ koy boole boole gi mooy dañ koy compter ne am nga juróom-benn barigo rek asaka war la mooy fa isaj tamax ndeem daje na min jëm yi ci mboole seen xam sut aw sax juróomi wasq fal yu zëkki na asakaal zalika loole wa kasaalika naka noonee tujmahu def na boole asnaaful xitliyati xeeti jiiri sëb yi xeeti sëb yi dañoo bari waaye daañu leen boole boole gi mooy boo bayee sëb ñee bay sëb ñee bay sëb ñee daañu seet ba xam ku boole lépp dana mat juróom-benn bërigoom déet su fekkee dana ko mat rek asaka war la waaye duñu ber nag ñeneen ci nekk rek ba mat juróom-benn bërigo déedéet dañuy compter leen lu ci nekk rek bu noppee nañu boole compter yi nag su matee juróom-benn bërigo asaka war la wa kasaalika naka noonu tujmahu def na boole asnaafu tamri xeeti tàndarma tàndarma fañ koy bàyyee dafa bari ay xeet lool waaye des koy boole boole gi mooy boo bàyyee tàndarma jee bay jële bay jële ñu xool ba xam jenn ju ne la nga ci am su fekkee ku ko totaale mat juróom-benn bëri bu asaka war la bu fekkee ku totaale du mat bu fekkee ku ko totaale du mat juróom-benn bëri bu asaka du la war wa kazalika naka noonu asnaafu zabibi xeeti reseñ reseñ noonu la mel boo bàyyee xeet bale bay xeet bale des na ko boole boole gi mooy compter compter ba noppi nag totaale ko ba xam mat na juróom-benn bëri boom déet su ko matee asaka war la su fekkee matu ko asaka du la war wal ursu ceeb wa duxun ak pepp mu ñuul nan des na ko wax suuna ak saa ñu mel na ne wa duróot ak mboq kul waahidin kenn ku ne min haaj ñoom sin fun aw xeet la laa yu damm woowu defu ko tàppe ilal aaxari jëm ci wacca des fi zakaat ci asaka yett yi moom nee na kenn du leen boole ci asaka soo bayoon ceeb bay suuna ak saaño bay mboq lu tax ñu boole leen wa amoon ci ceeb ñaari barigo ca mbay ma am ñaari barigo ci mboq am ñaari barigo ci suuna ak saaño lu tax ñu boole ko mu juróom benn asaka du la war bala ca asaka war rek nga am ci kenn ku ci ne nisaab muy juróom-benn bërigo yu mat wa isaakaana dem nekk na fil xaayiti ca tool ba asnaafun ay xeet mi ne tam ci tàndarma addaa mu jox azakaat asaka ja anil jam yi walis mboole seen min wasati yi ci aji digg doo moom ja ci aji digg doo moom fa ñuy bayee tàndarma xeet yi day bari léegi nag boo bayee xeet tàndarma yu bari bari kenn ku ne nga bëgg nga bëgg caa génne la tolloog asakaam day metti ci yow dañ lay may rek nga seet wirgo maanaam façon ba nga xam ne digg doomu gënu caa baax gënu caa yemaay li nga war a génn ci yëpp yëpp nga far ko génn ci menn moom dong xam nga loolu xéewal la nofal la ci yow waaye boo bëggoon topp kenn ku ne rek nga natt ko génn ci la ci war a génn day doon coono waaye ndegam xeet yu bari la rek ñu may la ba digg doomu nga génn ci li nga war a génn ci yëpp yëpp rek ci mel moom dong xéewal la li tax mu wax nag ay xeet bu tase woon ca tool wa mooy bu fekkoon day yaari qualité kese moom benn qualité ba baax lool benn ba yemaay lool itam dañuy seet kenn ku ne rek la ci war a génn ci asakaam muy qualité bu yemaay ba ak bu baax ba bu ci nekk ñu génn ca lañ ca war a génne ba tey bu fekkoon ne kat du tàndarma du reseñ nga xam ne xeet pepp yi la koy dañuy seet rek pepp mu ne ñu seet la war a génn ci asakaam ñu génne ko ci waaye duñu seet nag menn pepp rek génneel ca yëpp yëpp yëpp reseñ nag moom nee nañu res na ko yemale tàndarma nga xam ne bu fekkoon ne ay façon yi façon yi reseñ moo fa nekk des naa seet ba ca diggu doomu ñu génne ci asaka ji lépp lépp te bañ a topp rek benn